تعليم المتعلم طريق التعلم وإمام الزرنوجي إن قمنا إن شاء الله نجعل أما تفسير العلم نام فريق العلم مي قم قم نك نكلي فري بمعنى أنا لن مي تفسير العلم مي فريق قم قم لغوي فري نفهم صفة يتجلى بها لمن قامت هي به المذكور كما هو للموي التفسير العلم في رقم قم وتمنى أما تفسير العلم دام في رقم قم فهو صفة أب ملولا وقمنا يتجلى دين فين بأتي ملو لمن يلقين قمنا وقام التقوين هي ملو بيتمم المذكور نيالين تدتموي ملو دي قم قم كما هو كم نمونيكي mina xam-xam daal melo la woo xam ne dina feeñ melo woowu ñeel ki nga xam ne moo koy taxawee waxte moo la ne Cheikh Hadji Ibrahim daan na waxtaan ak benn koo xam ne dafay dagg sante ak moom mu wax ne ko sa sëriñ dafay wax ne almaiya ñoom dañuy wax ne almaiya ci xaq yàlla daal kooku jaasut mu ne ko sa sëriñ dafa wax ne yàllaa ngi ànd ak bépp mbindeef wante sa sëriñ waxu dëgg mu ne ko ah sama sëriñ waxu dëgg yow loo wax mu ne mu ne ko man de damaa wax ne yàlla xam-xamam la àndee képp wala na cheikh ne ko xam-xam daal damay laajte ndax zaatu jëmm la wala melo mu ko xam-xam de melo la mu ne ko yow sa weexaay wii ndax mën naa tàqali ko yow man sama ñulaayu ndax mën naa tàqali koog man mu ne ko ah déedéet mu ne ko kon nag asifa laa yu faariqu mawsuufaha melo du tàqali koog kuñ koy melal xam nga alquraan nee ne wa sanaqusanna alay alaykum bil ilmi wa ma kunna gaayibin kooku alquraan ne xel si nañ leen nettalil xam-xam téye ba ñu ngi koy nettali ñun yàlla fàdduwuñ kon nag waa ji ne ko jadinil iman yeesalal ma sama ngëm kon nag allahu subhanahu wa taala maa kulli zaat maa kulli maxluqin bi zaati ndaate as sifa laa tufaariqu mawsuufuha melo du tàqalu ko kuñ koy mellal kon nag képp koo xam ne am na xam-xam rek meloog xam-xam dina feeñ ci moom wante ku ko amut meloog xam-xam du feeñ ci moom wante tamit wa amma tafsirul ilmi ndaam firu xam-xam foofu moom boo bëggee xam xam-xam lu muy firi daal sifatun ab ab melo la wax xam ne tajalla dina feeñ bi ci melo woowu moo ana ci kan lay feeñ li man ñeel ki nga xam ne xaamet taxaw na yée moom melo bii ci moom almazkur wu ñu tudd kama huwa kam nu mu nekk من هو الفقهون قم قم فقه لومي تفسير لومي في رمي معرفة الدقائق العلم مع النوع علاج في قدال بوبو قم لومي فيري موي معرفة الدقائق العلم موي قم سو سو قم قمي مع النوع عندك فصون علاج فجي هي قم دقائق العلم عندك فصون كيف فجينت ودمجي نيو أصوليون نيو أغني معرفة أحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني وصول لنك إصلاحي نموي قم أتيك الشرعية ويقم نيوانا الاجتهاد من جلية كوتي اجتهاد ما يفرلو ما تول فقه فقه دال المعرفة بوبوغا قم فريم معرفة دقائق العلم ويقم سو سو قم قمي doo ko xam rek yem ci waaye maanawi ilaaj ànd ak façon faj yi qaala wax na moom abu xanifa abu xanifa wax na rahmatullah alayhi na yërmande yàlla nekk ci moom mu ànd lu mu wax nee na al fiqu dee maarifatu nafsi fiqu daal mooy xam bakkan wi moo xam bakkan wi ci lan mi ne maa laal la ko ñeel وما عليا اك لوار سي كوم بو لاك نت موي اف يو بو لاك موي لولو خير يو لا نيل بو عليك نت موي صفانو خير موي لي اك حي لا نيل من في قدال موي قام بكن وي لاك نيل تي يو اك لوار تي موم تي صفانو يو لول موي الفقه كوكو امامو ابو حنيفه لول ديفينيري الفقه nee na maarifatu nafsi mooy xam bakkan bi mm-hmm. maa la la ñeel ñeel na ko ci yow ama ale ak la war na ko ci ak safaan ak yow mm-hmm. wante gis nga nafsu nag dafa am solo mm-hmm. am solo gi am solo moo tax e, nekk na ci wala maay dañu wax ne xamal ni doole bakkan daal am datu waaxida benn poto benn kenn la am am datun waaxida mu mel nañ ko laaj ne ko am dawoo ban la mi ne alawaa mooy bànneex rek bakkan benn kenu la am te kenoom mooy alawaa muy bànneex moo tax bànneex boo ko dogee rek ah mën nga am sell ak bakkan wante boo demee ci alamaa dañu wax ne an nafsu ka daaba nañu tasbixee bakkan daa dañ ne bakkan dafa mel ne daaba dafa mel ne ak daaba rek mbay ma wala waa ba neexam zima moi mooy nos kaam wa iblis iblis xaayida moo koy omat wa dunia àddina martaa mooy forwaayam wante wa ida qataat wa ida qataata boo dagee azimaama noskeem fala yaati di dikk alxaaidu añ omat abadan bu faw mi na bakkan dafa mel ak dàbb dafa mel ne ak waru waruwaay moo xam ne façon naar góor la wala lu mënta doon rek te bànneexam moom dàbb wow mooy noskaam maanaam noska wuñ koy wuñ koy noskaa ci dàbb bi bi bu mu buggee màmb nga mën koy téye mooy bànneexam kii oma dàbb bi nag mooy iblis muy foree mooy àddina moo tax boo daggee noska wi rek noska wi mooy bànneexama aji oma jëtt ibli mooy iblis du ñëw Mm. te Iblis bu fekkee kuy omat daaba yu ñëwut mm. daaba yu du am fu mu fore dagg na nos ko wa mm. nos ko mooy alhawa muy bànneex moo tax suufiyank yi wax lu bari ci annafsu muy bakkan woowule moo tax waqaalu wax ne mal ilmu dee xam-xam illa al amal lu may jëf xukamaa eh, yi sax léeg-léeg ñu wax lu reelu te wax lu am solo nee na xam-xam woo xam ne jëfewuñ ko dafay mel ni ak garab gu amul miññit ma mm-hmm. tamit na mal ilmu dit xam-xam illa al amal lu muy jëf mm-hmm. bii ci moom mm-hmm. gis nga tawari rek te pratique woo amul solo tawari mooy nga jàng te pratique woo mooy jëfa jëfandikoo loo jàng bu fekkee ne dangaa jàng nu ñu arloosee li nga xam ne mooy téléphone bi maanaam tawari nga wante boo pratique wu doo xam nu ñu doo mën a defar téléphone mukk من إلى عقير النون لمل وتمنى وقال وعنا ملع المدير قمقم إلا العمل قمقم دال موي كي جفي قمقم والعمل جفي بيجي قمقم نت ممن إنك الله مو أنا نكلي نقمي كي جفي قمقم من ترك العجل موي باي أجي يحكم تجي تموي أدنى للعجل نيل أجي يخي جي تموي على قرى موي باي أدنى غير على قرى ndaxte addunia alfaniya addina dafay jeex mi ne jëfee xam-xam daal mooy bàyyi ajil ba ñu al ajil kooku mooy àddina lil ajil ñeel aji yéexe ji te mooy alaqira mooy ajil mooy mooy al axira moo tamit ne waqaale wax ne mal ilmu dit xam-xam illa al amal lu mooy jëf bii ci xam-xam wala amalu jëf bii ci xam-xam tarkul ajil mooy bàyyi aji yàkkamti هلي الأجيل نيل أجي إيه غيجي تمو فين بقي دنا يالنا للإنسان نيل دوم عدو إمام الزرنجي مني وخ من فين بقي دنا يالنا للإنسان نيل نت مو نيل دوم عدو ألا يغفل بمساقنا عن نفسي جبوبم واي واي يالنا دوم عدو بمساقنا بوبم داتي بساقنا بوبم تسكري نيلكو وما أغلب لو خمنا ينفع عدنا كجرين بمساقنا لكو يجرين مو تخوتي wa ma yadurra ak li koy lor fil ulaa ci àddina wa uxra ak ci àllaaxira mm-hmm. ah li koy lor ci àddina ak ci àllaaxira tamit bu mu ko sàggani fa yastajlibu mu sàkkoo bijjinat mm-hmm. maanaam xam ne yan foo ko jëriñ mu góorgóorlu sàkkoo bijji li koy jëriñ mu jëriñoo ko mm-hmm. waaye tamit mu teet maa yadurra lu koy lor lu koy lor na mu jëm koy teet bàyyi ko ñu ne ko ah, lu tax ومن ان قال له من كي لا يكون غير بمنك عقل وقلم وعلم وقم قم حجة مي أقلي علي وركو قم وخون لك بنا لك موي أقويو نيال بنا عليك موي لو قمنا أبصفان نيال من أبو فكي يلا دفلا مي أقيوال قيوال وو صبر نيو وكلو نيخ يلا دفاي مجي نيك أقمبوغل نيال يلا جوانا لقل نيو لقم قم te soppandoo ko ci lu neex yàlla mm-hmm. soppandoo ko ci lu jëriñ mm-hmm. ëllëg ci àllaaxira dafay mujj nekk am mbugal ni ñeel la mm-hmm. loolu la bëgg a wax moo tamit fay istajib dina sàkko na sàkko bijjlu maanaam xam ne yéen foo aat dina ko jëriñ dina jëriñ boppam way tani mu teen maa yi lu koy lor kay laa yakuna ngir bu mu nekk àqulu xelam wa ilmu wa xam-xamam xujjatan mbir moom muy aji nekk lay ali war ko فيزداد مدلك عقوبة أن بغلم ووعني دلك أن بغل إمام الزرنج من نعوذ بالله نعي مسلم بالله يلا من سخط سنجم ويقاب أن بغلم أي بغل يلا سنجم دانزل نعي مسلم تلال وقد ورد ردنا في مناقب العلم كي لنا قمنا موينجيني لو قم قم قم قم أمنا أي مناقب يقمني برينا ورتنا تي اي مناقب تي قم قم تي اي مناقبم وفضائل ان غيني لو ايات اي ايه مو تي واخبار اي احاديث بري صحيح اي وير مشهوره يسيون من مناقب العلم دي ان غيني لو اي اي رون اي احاديث رون نتي يو خمنا صحيحه مشهوره يو يسيو وانت لم نشتغل دوني سوخلاها بذكرها تي اي احاديث يتكتل غيني لو خم ak li nga xam ne moom mooy eh, manaqibu ilmu mm-hmm. mina soxlawuñ na ñu tudd ko mm-hmm. mu mel ne dañ ko laaj lu tax na tuddloo ñu ko mi ne kay laa yettul ngir bu gudd mm-hmm. alkitaab téere damay bañ indi ko téere yu mën a gudd wante boo delloo ci yeneen téere yi nga xam ne ñu ngi jàngale manaqibul ilmi wa fadaili da nga fay fekk yu bare bari nag mu ne kon nag loolu moom daal laa lay wax ngir bañ a téere gudd rek moo tax ma tënkal la foofule kon nag comme que darsu dafa gàtt bàyyil ma résumé la ko yow ndongo wi moo tamit nag wa amma tafsir ilmi ndaam firu xam-xam foofu moom sifatun melo la wax xam ne yatajalla dina feeñ bi ci melo wa li ma ñeel ki nga xam ne xaamat taxawee na yiyee moom melo wa bi ci moom almasgoor wu ñu tudd te mooy xam-xam kama wa comme nu mu nekkee والفقه فقنا بوك بوك قم ثريم معرفة الدقائق العلم مو قم سو سو قم قمي معنوي العلاج عندك فصو فجوي قالوا أنا أبو حنيفة أبو حنيفة وعنني رحمة الله عليه أن يرمكم عن المخ نين الفقه فقه معرفة النفس مو قم بكنوي مو قم بكن تلن من ما لك نيل تيو وما عليه لك ورتي أك صفانك يو وقال وانا ما العلم دير قم قم الا العمل ما يجف بي من قم قم دال ما يجف قم قم رك قم قم ونجف ود قال له قم قم والعمل يجف بي قم قم نت ترك العاجل موي باي اجي يكم باي اجي يكم تما عندنا للعاجل نيل اجي يغيت ما على قرب فينبقي لنا يلنا للانسان نيل دمي عدم الا يغفل ابو مسكن عن نسج بوبم وما لب لو قمنا ينفعو دينكو جيرين ينفعو عادينكو جيرين oma lépp loo xam ne ya droit dina ko lor fi ura ci àlla àddina wa ura ci àllaaxira yàlla na daal mu jéem a xam loolu fa yastajil mu bijjinat maa lépp loo xam ne yéen fa dina ko jëriñ waaye te ne mu téye maa ya droit lépp lu koy lor kay laa ngir mu nekk àqaloo xelam wa ilmu muy nekk ak lay xale yi war ko mu dolli mu dolli ko uqubata ak mbugal naa auzu billaahi nañu la musal ñu min sox di si saññeem doo ko firi ak mer ndaxte buur kenn du firi ci moom ak mer ci ak saññi way xaabe ak mbëgalam waqad warada ron na fi manaqibil ilmi wa fadaili ci ngeneelu xam-xam ak ngeneelu xam-xam ayaatu ay aaya wa axbaaru ay ahadis saxiixa yu wér mashhuura yu siiw imaam Zarnuji ne lam nastaxil soxlaawuñ nag soxlawuñ bi zikra ci tudd ay yooyu ak ahadis yi lu taax na soxla wuñ ko mu ne kay laa yetul ngir bu mu gudd alkitaabu téere bi mm. dañu bañ tudd ko fii téere bu gudd mm. moo tax ñu uh, yemandi foofule foofu sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi mm. yena yàlla may dégg topp dafa ñu ko defal leen ko alhamdu awla daawan wa axira walhamdulillahi min xiin ila xiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh